li si njëkk mooy bi nga xamante ne mbas mi am na ci réew mi bi ñu déclaré le premier cas de Covid 19 fii ci senegal mouvement bi cellule am bu ci ne taxaw na pour taxaw askanam ca fa mu ne taxaw bi weesuwul lu dul li nga xamante ne moom la ñëpp soxla mooy mucc pour mucc il faut nga toog si sa kër ñu jël ay dund. set ñi nga xamantene ne nañ ne seen loxo dajul ci seen ginnaw ñu jël dund yoy leen ko seen kër sutura parce que mouvement bi bi mu 2013 la ngi def un travail de fourmi di dugg ci population yi di wax population di surtout jigéen ñi nga xamante dañ tok seen kër yi defuñu dara encadrer nañ leen dugal leen ci ay euh, formation ut ay formateur ñu former leen nga xamante fim nekk ni ñi ngi demal seen bopp activité bépp ba nga xamante bëgg nañ ko taxawal loolu mouvement bi taxaw na si li nga xamante ne moo nekk tey jii mooy dañu taxaw ngir gis nañ ne son excellence le président Macky Sall décidé à ce que nous ibiwat école et lieu de culture nous il faut que nous contribuer ni moy nous pomper la nga école ak lycée ba nga ci Est ak la nga district sanitaire la lepp la nga marché la la nga lieu de culte parce que recensé nañ lieu de culte nous ci euh, secrétaire général, imam yi dem nañ ci église bi aussi gis ña fa ne ba fim nek ni nii maa ngi bàyyi ña ngay pompe ci église ba ginnaw bi ñu pompe lycée Abdoulaye Sadji bi formé nañ deux équipes ya nga xamantene ne ji sur le terrain lañuy yendu donc ngir matal jumaa ak jakk yi ak lieu public yi nga xamantene yépp am nañ ko ci suñu itinéraire école yi bien sûr école yi mo gëna nek actualité mais japp nañ ne aussi mosquée yi aussi war nañ ci taxaw ndax suñu papa yi bëgg nañ delluwaat ci jàkk yi te pour ñu delluwaat fa il faut que am ay matukaay yu leen di may ñu dem yàlla aar leen muccal leen ba tax na ni ñuy defee ni ñu privilégié école ñun noonu la ñu privilégié mosquée yi équipe yii dinañ dem si école yi équipe yële dinañ dem si mosquée yi su dajul tey waxtaan nañu ak le commandant le major pour que suba nous consacrerons la bonne journée, nous sommes tous les jours.